oui bon je pense que fi nga daanelee euh, mën naa fa tàmbalee. Mhm. Euh, mooy discours ministre bi. Mhm. bon premier ministre premier ministre bi. c'est vrai que li muy wax ni ñun ñëpp moom la ñuy wax. mais tamit on peut pas confier la responsabilité des gens na ku nekk jël ay responsabilités am et je pense que tey jii nii su dee moom dem na ba reconnaître points yi mu wax yëpp. Mhm. qu'est-ce qu'ils en œuvre pour que tey jii nii comprendre nga mu lii nekk ay points positifs pas ay points yoo xam ne ça serait la point négatif. et je pense que c'est ça l'importance mënuñu nekk fii nii il faut que on quitte des paroles tu vois à mm-hmm. Mm-hmm. fii Sénégal defe naa loolu moom moo ñu manqué mm-hmm. je pense que sànq kii yàlla xaw na broché si situation boobu na que tey gis nga gis nga migration bi Sénégal c'est vrai que ñàkk politique migratoire moo tax mu demee nii mais suñu amoon politique migratoire ça serait pur man bokk ci sama analyse ah loolu laa wax parce que xam moo tax parce que xoolal ñàkk politique migratoire tu sais qu'est-ce qui s'est passé moom mooy moom mooy SILEC bu mu wax moom la ñu après ñu changé nom bi. Mm. c'est juste qu'on est toujours derrière une communication boo xam ne dañ ñu koy dicter parce que après tout ay SILEC yi ngay gis nii ah ay SILMI yi c'est la communication de l'Union européenne c'est eux qui dictent à nos gouvernants ce qu'ils doivent faire avec la population. Mmh. et c'est ça qui malheureux parce que après tout c'est l'Europe qui s'enferme tu vois et nous pour eux. Mmh. problème dignité bi dafa taxaw parce que gis nga doomu aadama soo bëggee kaas li nga xamante ne yow yaa ko moom d'abord da ngay conserver sa dignité ba pare je pense que c'est la chose la plus importante mm-hmm. tout ce qui se passe en migration ici c'est des choses qui nous ont été dictées mm-hmm. gis nga projet de développement yi ñuy wax comme par exemple tout ça il faut accompagner avec des projets de développement tu vois euh, redistribution et tout ça yooyu moom mooy la communication qu'on le dire qu'on le demande de dire à la population parce que on leur donne de l'argent pour que ñu taxawee ci communication boobu et les gens ils consommer ça mais après communication boobu qu'est-ce qui a été signé en bas quels les bon yan dispositifs parce qu'ils reçoivent des armes pour protéger les frontières mm-hmm. et ce sont les SILEC xoolal SILEC par exemple mm-hmm. ay corps armé rek a fa nekk ay borom grade rek ñoo fa nekk ah c'est pourquoi à chaque fois seetlu tendance bi am ces ces ces derniers six mois. tu vois ñoom ci organisation boobu noonu pour lutter contre l'immigration clandestine. Mm. ils sont en train de les gens et coow di jib. ça se passe léegi dañuy tiire ci kaw booy di leen rey parce que c'est ça qui est dans les protocoles protocole bi nga xam ne moo laqatu ci ginnaaw il faut faire des projets de développement tu reçois de l'argent pour faire des projets de développement mais en contrepartie tu peux Comment, et c'est ça qui comment, se comment, passe mais la gendarmerie il a tiré ici si si si si si si gendarmerie ci boppam ah ils ont tiré fii ah, ah, Tëngéej la marine tu vois ils ont tiré fii et c'est des choses yoo xam ne ñun ñi nga xamante ne on était dans la Méditerranée non loolu moom loolu moom c'est que en fait ñun mën nañu ko comprendre dans notre contexte mais yow sa expérience personnelle tu vois non li may wax ay ay faits yu réels loo xam ne mën naa ko justifier la hmm. tu comprends man par exemple dama nekk situation boo xamante ne j'ai vu les gens tirer sur les migrants à bout portant di ko gis chaque jour en Méditerranée et xam naa lan moo ko war waraloon parce que c'est c'était l'installation tu vois de de cette forme de externalisation des frontières bi nga xam ne mi ngi existé et ak seen agence boobu ils ont créé bu tudd Frontex boo xamante ne moom moo fi nekk fii nii comprendre nga di di semer lu ko neex parce que derrière tout ça y a une force bu fa nekk et loolu tamit su fekkee dafa commencé développer au Sénégal il faut s'attendre à ce de kon li Pape bi waxoon sànq combien de gens ñoo xam ne ñoom ñoo fa disparaître Méditerranée amul benn unité de sauvetage unité d'interception moo fa nekk amul ay marine fa nekk te pour jàpp nit ñi la même guardia civile bi fi nekk d'abord waru foo nekk mais guardia civile pour jàpp nit ñi la et amul droit sax jàpp nit ñi fii tout récemment ils ont attrapé 186 personnes yoo xam ne dañ leen pushback ça c'est anti loi wala en fait dañuy ñëw teg pression suñu autorités yi pour que ñu dem jàppe nit ñi et loolu du yoon c'est que après tout il faut ñuy xool li nga xam ne moo dul yoon ba pare ci mbir mi parce que ah, après tout booy yi ce sont des déplacements xale yi jóge fii non c'est des déplacements forcés. xam tax ma ne déplacement forcé parce que gis nga nit ki gis nga xar xar soo ko tëjee sa ci ci kër. sooy ñëw sax di ko indi lekk sooy tëj bunt bi rek muy jéem a génn et c'est ça qui se passe avec nous on nous a encerclé enfermé dans un circuit boo xamante ne comprendre nga dañuy wax non non bu leen génn bu leen génn mais ñun on a envie de xool li nekk ci biti mm, mm, mm. et c'est comme ça que ça se passe suñu bàyyi woon tout tranquille avec cette liberté de circulation suñu buggee dem dem gis nga sénégalais nekk fee di di tukki ils vivent indignement situation yi métti la ñuy dundee xam nga moo tax parce que mënuñu ñëw mm-hmm. xoolal ñi ñu ñu ñu ñu ñi ñuy fii sax di wax naan wéy ñoom ñoo fi nekk comprendre nga dañuy nekk fii comme kii lu mu wax dund bi ñu fay dund comprendre nga galère la et ci biir galère googu nañuy dimbali Sénégal yaa gis koo xam ne day fanaan ci tente di fanaan ci neige bi di kii et pourtant chaque mois mu yónnee xaalis Sénégal tabaski su jotee mu rayal seen waa kër xar et ci loolu lépp da koy da koy da koy organiser ak fanaan ci mbedd boobu noonu parce que su doon ay kii du ko mën. Ah. donc ñooñu war nañ leen xoolee beneen image yu fait image yu détresse boobu ñuy nekkee. parce que su nekkuloon image de détresse boobu noonu amaana y aura des fii yoo xamante dina ni yow bëgg a ndékki du ndékki